nuyu tamit samay collègues ndax ñëpp xam nañ ne politique du métier ñii ma foofu laa bokk samay collègues journalistes maa ngi nuyu nuyu itam samay collègues conseillers municipaux yi fi toog tey ville bu Guédiawaye nuyu itam samay collègues maire nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toog yëpp fi may dooree nag mbir mi mooy sant yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi koy sant di ko gërëm bu wér julli ci yonent bu tedd bii di alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne bokk ñoo ñoom diine itam di suñ mbokk chrétien yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu wér gis nañu kon taxawaay bi ñi nga xam ni nag ñoo ñu jàppale suturaal ñu génnee ñu ci complot bu bon bi nga xam ne njaboot Macky Sall ak njabootam loolu lañ ñu doon waajal ak di ñu ko yéeneel waa yegg si woon ma yëkkatiwaat kàddu gërëm nag waa Géejawaay ginnaaw waajur yi gërëm waa Géejawaay gépp ci mobilisation bi nga xam ne def nañ ko keroog bi ñu arrêté ba bu ñuy dugal ci biir kaso bi te bàyyiwuñ muy imaam muy mag ñi muy sage muy suñu yaay muy soxna yi muy jeunes ak personnel lu mairie bi waa mouvement géejawaay laa bokk waa yeewi askan wi géejawaay ak la conférence des leaders nga xam ne Khalifa Ababacar Sall moom moo ko jiite ñu sant ñëpp gërëm ñëpp te nag ngërëm loolu it ñu boole waale ci nag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy avocat pôle boobu nga xam ne metre Bamba Cissé moo ko jiite ak mu maître mu Moustapha Dieng ak maître Sidi Diagne ak maître Coy ñoom ñoo ñu nga xam ne ñoo ko jiite génnee ñu ci jahanama safara soo xam ne moom lañu ñu Macky Sall ak waa këram yéene woon te yàlla ji ne leen du ca dal lañ jàpp ne nag loolu lañ def di infraction ba tax ñu jàppoon ñu wax naa ko juge bi yàlla dogal na comme que ñun moom dañ doon ragale nekk ci biir génn ñu naan ñu bañ nekkee police dañ fa nekkoon di ñu yelewaan moo tax inspecteur ba ñu doon déglu bind na ñetti yoon ñu may seetaan ma ne ko rectifier waxuma lii wax dindi lii lii laa wax ak lii bul tëb dara ci li ma wax parce que ñun dañoo seetlu saa yi bu gaa yi génnee rek ñu naan noo dégg naa fa la nekkoon di onk di baal baaluwuñu te bu ma génnee dinaa doxaat ba ma demee ca kaso ba ña ma fa fekk ma wax leen ko ba ñëwee tribunal démb taxaw ci kanamu juge bi ma ne ko yaa ngi nii procureur ngi nii bàyyi ngeen ma léegi dox naa léegi. su may dem mairie ba di dox ma jógee tey sama kër dox ñëwaat fii su may ñëwaat suba mercredi damay doxaat ñu xool ba xam dox dañ koy tere ci mim réew mairie bii nag li ma wax juge bi laay wax Macky Sall yàlla dogal na li muy dogal ba pare mairie yi muy nangu bii du ci bokk bii dañ koo xeex sept ans sept ans la ñu daw ci mbeddu géejawaay suñu alal fekkewu ko suñu njaboot fekkewu ko ñu rey suñ bopp parce que y avait un intrus nit koo xam ne daf ñoo rax dëkku fi dëkkaanu fi prox ndoll ba jël suñu mairie bi toog fi 2014 le premier mars 2015 ma ànd ak sama juróom sur juróom-benni xarit juróom-benni xarit suñ ñaari yaay suñ benn jigéen ak ak ak ak ak ak Omar Ndiaye ñu ne kii na fi jóge ñu daal di départ sept ans de combat mairie bi caaxaan mayuñu ko. nelaw moyuñu ko yelawaan moyuñu ko te kenn pare nawuñu ñoo ko xeex jot ko ci suñu coalition bii di yeewee askan wi Macky Sall maire yi muy maye ba tax mu leen di woo di leen baab pour ñu ñëw transhumé bii bokk ci bii bii moom na ko leer ne moom bu dee moom la yaakaar a reeree day fande maire yi Géejawaay bii du mës a dugg ci maire yi fax te ñi nag fi bokk dañ ko xam Géejawaay duñ fi bàyyi rakkam ji nekk ab milliardaire bàyyi fi ay ministre bàyyi fi ay directeur yow Ahmed yoroolu suukar màdd nekk simple journaliste ñu jël la nga rawee ko presque juróom benn junni ci ay voix ñu lay woo naan la ay ñëwal nga jël lii ak lii te nga war waa géejawaay loolu dee sax moo ñu ko gënal yow nga def lu ne lii lancement la mais yii di ñëw yeneen yi la ñuy wax yow baab bu ne nga baab ko affaire yi dëgër nga ne xaaral ma jéem ko xoxatal moom sax xam na ma sax Macky sax xam na ma mais ñeneen ñi ñoom ñoo ma xamul mais moom xam na ma parce que ñoo nekk noon PDS démocratie nag dafa toll foo xamante ni nii ci Afrique soowu jant dëkk yi ñu wër dafa commencé di fa yëngu ñenn ñi ñoo ko forcer seen bopp jarul muy tudd seen tur ñenn ñi dañuy bàyyi mu ñëw naturellement ci jamono jooju Macky Sall moom mu ngi jël ay liberté ne dee réew mi kenn du fi sëqat kenn du fi puus kenn du fi paas kenn du génn sax sa buntu kër dem doxi loolu bu ko waxee waxul lu am nit ñi dinañu doxi dinañu doxi seen soxla dinañ doxal te du leen mënal dara ba dara booloo jeex bu loolu jàllee ñin nag jàppale ne ay otage lañu woon ñin ak suñuy collaborateur ay otage yoo xam ne dañ leen a jël booleelee nag benn ci police su benn ci police su Sénégal waxuñ ne police su bi yëpp bon mais benn ci police su Sénégal boo xam ne tudd nañ turam démb ci kanamu tribunal bi te dinañu ko tuddaat bu dee dañ koy yónni nag na waajaat te tey waroon nañoo kar ba ma ñëwee ba marché Crimi moom commandant bi waroon naa génnaat karñu suñu karoon tey kon dina xam ne lépp dëgg la te buñ génnee fii nañu karaat. mu xool ba xam dana demee comme ni mu demee woon bu loolu jàllee ñu ñëw ci jëf jëftu ñaaw di nga xam ne moom lañu ñu nimmiku ci nguuru Macky Sall ak ni mu yoree suñu alal ji Macky Sall njabootam gi ñu bëree bëree bëri def nañ fi ay tojaange yu raw fuuf di manifester dañ leen bàyyi ñuy doxi seeni soxla kenn ci samay dëkkandoo laay tudd fii muy Seyna Fall Bougazelli loxo ci poos jàpp ko mu naan gendarme yi kaay leen ñu arrangé ko loolu rek corruption la mu daw gendarme yi di bay bayal ak moom tey suba ginnaaw suba parce que Macky Sall la àndal Sonko waroon nañoo fekk ci moom benn pièce su franc rek faux billet benn benn kese benn mu xool ba xam tey fan lay fanaan muy naangi naangi ay millions voire milliards ñu tëj la ci kaso bi yàggoo fa dara. génn ñëw fii di lambar lambari di dig alin Sall maire bi naan ko su génnee ñëpp xam ne gaynde génn la ba ba bii ba démb génnul Aliou génnul kane moo koy génne ak ki war a génn génnuñ ba campagne bi jeex campagne a ngi nii di ñëw nañ ñëw te du ñoom nee nañ la remontada ñàkk jom weesul nga yor nguur seex ko koo xam ni yorul suukar danga naan ko remontada un un deux maa leen ko wax tey député par dañ leen dóor dóora nañu mobiliser alalu askan wi yëpp ku leen jox jël leen li ma leen waxoon ci élection locale yi lekk leen ba suur naan leen ba màndi su bis ba joxee rek ngeen defaat lu rafet jël leen seen doom yi yeewoo ak yéen fal leen moo gën ngeen topp leen seen alal lañ yor bu ñu leen ko joxee lekk leen ba suur boo leen duggee ci mbaj gàcce gi rek karawaase waat leen mais waxoon naa leen lu leer lu mel ni midi dañ leen di gañe fii conférence des leaders dañoo toog ñoom Sonko ñëpp toog ma ne leen lijjanti leen yeneen 45 départements yi Géejawaay demee na côté maire par force dañuy gañe neex na xarit député yi ne woon foon ñu làmbi feneen les corps de contrôle de l' ñaata ay ARMP of nag ku jege gii rek barki Demba Ndiaye kese wax fi ay doomu aadama ñëw leen ngeen def déclaration de patrimoine képp ku ñu dénk un budget de plus de un milliard wala égal à un milliard da war a dem defi déclaration de patrimoine dem leen ngeen ñëw wax nit ñi li ngeen yor lan la bàyyi sàcc gu metti bi ministre Macky Sall yi dëgër bopp taxaw def lu leen neex ne leen demuñu. nii lañ fi indilee ay jafe-jafe na kay taa ba dàqlu ko Seydou bu ñaay jaxate moo ngi nii ñëw taxaw li muy doon magistrat yëpp du pousse du passe mënalu leen dara maay premier maire après l'élection bu njëkk a dem buubu samay keccax ak samay bisaab ak la ma am a kës néew yóbbul leen ne leen lii laa am budget mairie Guédiawaye nee nañ un milliard cinq cent la kon man bokk naa ci samay oto ngi nii ba ci say doom dañ la koy laaj laaj la say soxna laaj la tout carte grise tout nga génnee teg carte bancaire compte tout nga ne acca enquête leen mais ñoom defuñu dara parce que Macky Sall lañ àndal tous les contrôles les les corps de contrôle de l'État nitu Macky Sall yi ñu fi épinglé yépp non seulement du leen yóbbu sax police ñu entendre leen mais da leen defal promotion ñuy defalaat leen yokkal leen ministre woo saagakat ndey ñi nga xam ne ñoo ko daan jàpp di ko saaga di ko daggal di ko saaga di ko daggal di ko saaga ñooñu lay defal promo ñi nga xam ne ñoom ñoo reyoon seen bopp ci moom wax Ablaye Wade ne ko fii troisième mandat du fi am les mandats de trop war a jeex ci diwaanu Afrique gars yi waxuñu woon Ablaye Wade troisième mandat du fi am parce que dañ ko contrôlé parce que woo ko wax dëgg te yàlla tax xam ne Ablaye Wade yaafus jëleewu ko fi Ablaye Wade ñàkk liggéey jëleewu ko fi fu mu fekk tali da koo yokk dong mais fekk na Ablaye Wade gas tali ba ba pare fu mu fekk assainissement da koo gën a xóotal waaye fekk na Ablaye jaar na fa ba dem aéroport bii muy tiitaroo Ablaye ko fondement ba wàccee fa roppalaan mu koy tiitaroo te bi mu koy inauguré ñun ñëpp dem nañ poussière ba keroog rey ñu pareegul mu njëkkante jam ñaajo gi fekk na Ablaye jaar fa ba pare ñu ne ko suuf si baaxul mu forcé ñu stade gazon baa ngi ne di toj mu ne kenn du ko wax kenn du def soo àndeek moom yaay bañ bu ñu la contrôlé jàpp la mu ne la kaay ñuy toog sama wet président de la république buy dem jàkkaarloog télé naan sama cont bi am naa ay dossiers yu ma ci teg yow daal yaay xool yu la neex nga teg yi la neexul nga ne gars yi dugal leen leen ci biir kaso bi Macky sal moom moo réew mi te mënoo muusa ko mu tër bi ba nit ñi ragal la wala dellu ginnaaw te yow Macky Sall yow yaa doon wax ay Aïdara mii ne ko bul mës ànd ak nguur soit toujours du côté du peuple tant que yaa nga fa li nga bëgg benn di ko xam nit ñi dàqoo leen jàng ëppoo leen diplôme jiituwoo leen ci métier mais saay bu sondage génnee nga jël bi xamal ko war a parce que sibooru woo benn kon du ma ñëw ba fii tey yow mag yi ma lay sibooru wax ak sama nit ñi nga xam ne ñi ñu fii commissariat ak ñi nga xam ne lañu yóbboon rëbës ak président Déthié ak maam jaara Fam ñu masawu leen waa Géejawaay ñuy jot a jaar ci police bi ak ci prison bi ñu baalu leen àq parce que xëj na nattu bi si suñ loxo la ko yàlla ji jaarale mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ma wër ñu sant leen gërëm leen wax leen tam tamit ne leen lii moo indi mairie bi dem ngeen police demaat da ngeen demul kaso mais dem ngeen fi police su Aliou Sall dem fi gendarmerie su Aliou Sall ba tey ñëw ngeen dem tribunal ci affaire Auchan ba tey ñu ñëw ci Macky Sall mu dugal leen ci kaso bi kaso nag kenn du ko yéene kenn waaye moom moom moo fi indi dóor fayu moom Macky Sall moo indi dóor fayu ba mu indee dóor fayu mooy ba mu toogee ne damay dekkalaat crédit bi ba mu toogee ne kër Ablaye Wade bi dama koy jaay ba toogee yoreel fukki weer ak benn Ablaye Wade salaire Wade loué France di defar këram nga Versailles di defar bi ci senegal mu ne ma Ahmed Macky sal xamul man lan laay dundee mu téye sama salaire fukki weer ak benn lii yoon la ma ne ko déedéet nettali ma nag moom Ablaye Wade keroog bi waajuru jigéen wu makki Sall di waaja tàggoo te ñu génnee palais dem dugub biir principal nemmeeku ko ñibbisiwaat ndénkaanewu jëmuñu tedd jooju ci àjjana la mu waxoon ñoo Ablaye Wade ak Macky ak makki li mu doxal après kooku à suivre la. tôt ou dinaa ko waxi jom dem France jël Ablaye Wade émission ñibbi si Sénégal ñu ñuy supplier son ministre de l'intérieur d'alors Ablaye Daouda Diallo dimbali leen ñu teg pression lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii balaa adduna di tukki ngeen di saraxu nit ñi toog tey yaakaar ne nguur gi day tax nit ñi gaayanti wala ragal wax Antoine ne ko candidat la monsieur le ministre candidat la député candidat la député man maay tëdd liste Yewwi Guédiawaye mooy bu jigéen bi PDS ñun ñaar la Antoine Diome candidat la may candidat Yewwi ñett xamuñu mais ñaar xam nañ ñett xamuñu mais ñaar xam nañ tey lancement dong la li ma wax ci waajuru jigéenu njiitu réew mi Ablaye Wade ak moo mag ca hôpital principal naa ci dellu si dama ne ko candidat laa mujj nañ ma koo def géejawaay candidat laa ñuy wax nag ñuy wax ne suñu démocratie bi ak suñu constitution bi ay nit ñoo ko doon xeex ba réforme 92 ñëw ba li fi xew yëpp jaar fi ba Ablaye Wade indi fi personne neutre pour ñu tëgg ay élection élection yëpp Abdou Diouf da doon wax ne jàkk jàngoo ku mën a nodd noddal mais nu Macky sàll moom moo fi ñëw jàppee boppam buur jàppee boppam gaynde nee na mooy roi des arènes damay tëdd di sieste di bàcc bàccal gaa yi teew doo nangu benn yoon gaa yi bëri bàyyil gaa yi ñu bëri bàyyil Sonko mu bëri nga bàyyi ñëw Aïda Mbodj nga bàyyi la liste des titulaires de Yewwi loolu la ñuy xeex ba dee par extraordinaire bu jàllul woon sax yow remplaçant yi ñooy dóor say titulaire te titulaires yi dañuy jàll par force neex na xari parce que moo moo réew mi Macky Sall yàq démocratie bi nga xam ne moo fi ne caxa-caxatee suñu constitution bi def lu ko neex lépp ndax pétrole bii ñu tudd ne deux mille vingt trois deux mille vingt quatre premier puits teen yu njëkk yi dana génn mu ne doo ko fi bàyyi naan may leen ma may yeggali fii ku dund téeméeri at ak juróom fukk bàyyi fi ay mébét fii ku fi toog ku ne am nga ay mébét saraka jaa ngi nii yëkkati woon fi ay taax maa ko inauguré maa fay dugg par force neex na xar mairie bu bees bee du fa dugg maa fay dugg maison de la femme maa fa nommé directrice SAT maa fa nommé ay directeur te moo fi nekkoon mënu tus ñuy xamal Macky Sall ne ko réew mi dundoonam réew mi du monarchie du royaume boo xam ni da wàcc sa doom yéeg wala nga wàcc jox say sët fii république la ñu ne sandicarte seul le peuple est souverain te Macky Sall war na cee xam dara fu may jeexalee nag mooy gërëm yenn ci police nationale ñenn ci police nationale laa wax yoo xam ne ay républicain lañ ñenn ci police nationale waxuma toute la police de ñenn ci police nationale ñu sant leen gërëm leen gis nañ seen taxawaay ci coow yi fi jot am léeg-léeg sax ñu xaw leen a tuumaal ne ñooñu dañoo xaw a yeewi nuyu tamit général Tine lu fi dal nit ci nguur gi rek parce que da ngaa jubal ñu ne la yow da war a far ci ñun par force yàlla sax ñëpp dafa dañoo far ci moom am na ñoo xam ni gëmuñu ko sax du ñu jullit du ñu chrétien nee nañ yàlla amul te yàllaa ngi nii bàyyi ñu ñuy dund suba ngoon bu dégg ba ci ñu sant tamit l'administration pénitentiaire mooy ñi nga xam ne ñoom lañ dénk kaso yi ci réew mi ñu sant leen gërëm leen ak détenu yi nga xam ni lañ jàppoon parce que ñëpp laaj nañ leen seen conditions yi nga xam ne ñoom lañ nekkee woon ñu sant leen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon rëbës ña leen fa yoroon ñu sant leen gërëm leen man ak Déthié mi nekkoon Sébikotane ñu sant leen gërëm leen dëkk boo xam ne boo defee lu baax boo ne damay gërëm sa ñu ne lii sa tum tëm nga tudduma gars yi yaakaar ne gars yi ci yéen lañ far ndax tiit cette peur moo fi war a jóge ñu sant leen gërëm leen bu baax nuyu madame la maire Khadija Maye Koor gërëm tamit Déthié Fall masawu ko masawu tamit maam jaara faam masawu tamit Baara Dolli masawu tamit Guy Marius Sagna masawu tous les otages politiques de Macky sal ñi nekk ci kaso bi yëpp parce que ànduñu bokkuñu gis-gis ak Macky sal ñu ngi leen di masawu bi leen gërëm bi leen masawu lii nag du fi lu bees Ablaye Wade keroog ba mu ne day dem créer parti papaam dane ko ndax ñeme nga ñaar yii mu ne ko ban ak ban mu ne ko kaso ak dee kaso ak dee kaso ak dee xam nga kooku ute naa ki naan perte nguur gi dee moomu ko gënal dinaa ne dee de alaaji Ibou nee na nguuru yàlla rek moo dul jeex te nguuru yàlla li tax du jeex mooy amul élection yàlla bu sama amul élection dafay yàgg-yàgg gars yi jékki-jékki ne ko sawaay doo ñamal diw mais amul koo koy borom kun moom moom asamaan suuf sama waati wala arad mooy càppaacoli gi kooku amul élection kon nag moom mii tôt ou dana dem te moom sax fukki weer ak juróom-benn doo nga ñoo ko fi dese parce que moom 2024 moom du bokk léegi nag ki ñuy waajal ñoom seen biir 2024 moom la amagul dégg nga opposition bi bu ñu radical woon sax xëy na mu xool koo xamante ni nii moos day tuuj fii cappatee bu ko defee euh, mooy mooy loolu mu wax ak moom. bu ko defee xëy na mu jéem ko koo buux mais APR ci boobam ñoom ñoo amul ku ko wut te ñemeewul dem tiit na def fi yoo xamante ni nii maara day taali yaakaar na ni ku fi toog di nga ko rey réew mi nag amul ay reykatu nit konoon ba tey bu ñu duggee fii ci biir mairie bi fii quatre-vingt-dix-huit pour cent yëpp ay waa APR lañ fii cent yëpp fii li ñu leen sant daal mooy fee ca buntu ba na fa yére yëpp di yem yére yeewi yeeg yére bennoo ca buntu ba boo duggee liggéey pare dem ku fi dugg naan da nga fiy jéem a politique far fi ci beneen feneen boo bokkee yeewi sax dinaa la wan la gis nga fi la woon woon ni na ñi fi nekk te duñ liggéey si dàq leen dagg naa fi huit salaire xaw ma demuñ conférence de presse de dañ a pat trois ans teguñ seen tànk fii ci mairie bi dàq naa leen mais kenn demul ci presse di kaas ku fi dem ci presse di kaas ñu yóbbu le nga si léegi xaalisu nit ñi dañoo war a fay sàcc lañ mais dañ ne patt ak moom boo léegi lu seen naqar ne muut buñ fi dof dof loo léegi ma jëli leen